Euh, Seydina Anas nee na bi sallallahu alayhi a sallam néew na mu wax mu masaan wax ba daaneel ay waxam te fàttaliwu ca baatu kóllëre daana wax ne kenn amut gëm yàlla gu wér ñu ne ko déet waay mu ne ax ah kañ ñu xanaa gëm yàlla moom am na tur wàcc la ci kaw suuf mu ne ax ah kañ wàcc na ci kaw suuf si waaye néew gum néew dana tax ñu naan amut ñu ne ko loolu bu ñu ci bëggee bokk ci ñi gëm yàlla ne ci ñoom lu ñuy def mooy da ngeen di fexe ba bu ngeen fasanteeg nit kóllëre ngeen fas ko bu dëgër téyeku waaye nee na kenn amut diine it ku dul ki nga xam ne su de joxee nit ab dëël wala mu dénk ko su ko koy delloo day mel na meloon bu dee ku sàggan la bu dee ku mel na war a mel mu gën nam ko ko dénk woon bu dee luñ mën luñ mën a jagal la moo tax kóllëre bu ñu ko dee jàngale ci diine mënees na koo tënk rek ci ñaari tomb yu gàtt ba ca jëkk mooy jullit bi saa su nekk muy yëg ne am na lu mu fasanteeg suñu boroom lu ko ba tax suñu borom dénk ko inna jaalnaaka xalifatan fil ard nit ñépp ko bokk doonte jaare na ci يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وإني إني جاعل في الأرض خليفة لولو نيبكو باك كين كونيك داي بانا جوخون مروم ني كي لاني واخ وايي موم مو جيكا جوخون بابام ني من مي لاني واخ لولو دارا جيتو ووتي بو ني جانغات كول دا سي دين